waaw kamara maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu borom kër gi directeur Allo Dakar Bounama Fati di am kontante ci tey euh, nekk benn at ci bi président biñ ko tegaate ci bopp réew mi ak léegi euh, may am kontante bu baax ci témoignage bi nga xam ne nii benn at bi président def ci bopp réew mi ci Sénégal ci département ba ma dëkk waaye rawatina ci commune ba ma dëkk li nga xam ne nii mën naa ko wax teg ci sama loxo may ci loolu loolu moom sawar naa ci trop pour wax ci waaw train express bi loolu xam nga xam nga réussir na ko xam nga xalaat bu baax rek planification bu baax rek réussite la loo xam ne mosul am Sénégal 1960 ba léegi ñu xalaat ne réew mi attanut ko mu xalaat ko pour indi ko fi rek loolu rek dèjà bu ko xalaatoon bu ñu tegoon raay bi kese terrain bi sax ñëwul réussir na ko parce que njiit bu am vision bu am xalaat bu sori moom lañ soxla te gis nañ ko ci moom tere express bi nag ku nekk xam na ne réew dafa am nu muy doxee duut état bi mooy liggéey lépp marché dafa am boo amee ut boo utee marché ba pare boo amee projet da ngay ut xaalis ay bailleurs yu lay finance bailleurs yooyu nag suñu lay financé ba pare am ay entreprise yuy gagné liggéey yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xam ne tey entreprise bi contrat moo leen tënk bailleur bi financé moom itam ci contrat la dafa ne loo xamante ni nii fekk yoroo section doo xam ni muy demee duur xaalis bi président dafa yore xaalis bi rek teg ko nii ñëw ne may liggéey express bi express bi wàllu wu ne dafa am ñu def étude am ñu koy liggéey ci diggante boobu nag man xawma partenaire financier bi moo taxaw wala xawma entreprise bi moo am parce que entreprise mën na fausité lu bëri war a def dara maître d'œuvre ouvrage na ko li baaxul mu dindi dindiwaat su boobaa su fekkee ne coût de bi mu defoon def ko passé mun na tax mu taxaw di xaar ay avana wala leneen loolu yëpp nag xaw ma lu ci ni ci biir mais xaw naa xam tuuti ci ay marché ni muy doxee mais en tout cas yooyu yëpp mën na nekk gàllankoor mais daal président de la république bu xalaatee terrain boo xam ne kenn mosu ko gis Afrique devest l'Ouest bii ñu nekk mu xalaat ko pour indil ko waa Ndakaaru yi ndax dëkk bi jafe-jafe bi mu am dañ koy féliciter bam ko xalaatee ba commencé ko rek réagir na parce que xel mosu ko daj parce que nit ñi amuñ xalaat lool motax ñu ne ci di wax manam lepp lepp lo tek te déggo ci ak wax rek xamal na du lu mais so indee lo xamné ne xel mosu ko daj cioli yi dana bëri ñuy la attaquer mais loolu Sénégal contre Sénégal la parce que ñooy tarrel réew mi nit bu amé xalaat bu baax dañ koy encourager pour jappalé ko looloo yegg waaw loolu la ci am lu Touba Thiès Ila Touba Ila Touba pare na pare na Ila Touba bi man jaar naa fi loolu yëpp boobu pare na boobu moom lu question boobu pare na nag yow itam Camara Ila Touba bi pare na mooy li ma lay wax gis nga koppar yooyu yëpp du kopparu réew mi ay partenaire lañ du dégg ñii ay mobilier la ñuy def jam ñaajo àll boobu nam meloon kenn mosul xalaat loolu président am xalaat toj ko ut ay partenaire turquie ñëpp ñew di construire lool du xaalis Sénégal xam nga dafa am lo xamni ni nit ñi xamuñu ko parce que biir ndakaaru plateau gi mënatuñ fa def lu mel noonu tay ministère yi nekk foofu boo demee ministère yu mucc ayib la te état bi luy fayatu location ñaata coût la ko doon dikk pour wax la né la sumbul ben projet parce que rew mu tardé kay mo wax la gis nga gor bu yéké bu gor bu yéexee takk soxna hein ba yéex a njaboot bu bëggee njaboot gu bëri day tegle day nef day day nef ci soxna yi day teg day tegle doom yu bëri parce que xalaatu président dafa ëpp doole bit si réew mi moo war a tax nag nit ñi may ko bat maa déglu ko mu décortiquer lim pala lim lim bëgg a def lépp lim bëgg a def lépp buñ ko mayee déglu ko encouragé ko dina ko def sumbul dara lu bëri loolu du dara réew yi réew yi réew réew réew yi yëpp ñuy wax lu ñu wax ñuy tudd France ñooñu dañoo liggéey ba pare mais réew moo xam ne depuis 60 ba tey ñuy wax jëm seetaan alli bi jëm ñaajo dajaloo ci Ndakaaru plateau bii di fi bot botaloo tabax yi di fi def lu kenn xamut di tabax pax yi Macky Sall la ñëw toj jëm ñaajo yëpp uti ay partenaire Turquie ak Chine yëpp ñëw fa di ko tabax ay immeuble arena bi lépp ñu def ko mu àgg amul lu àggut foofu loolu amul lu àggut foofu amul benn sànc ba àggut problème mu terre bi problème la fan yi dégg naa ay français da ci wax parce que ñoom bugguñu bugguñu affaire yi àgg parce que ñoom projet bi président su euh, soumettre na ko ay partenaire lu la ci ànd xaw ma partenaires yi mais en tout cas ak lu ci mën a xew rek ki ko xalaat bay ko def su doon sagoom rek mu àgg mais marché dafa am bailleur dafa am ku finance am entrepreneur buy gagné pour liggéey ay contrat di leen lëkkale contrant yu di leen lëkkale nag bu ci fausseté dana am rupture rupture boobu nag mën naa nekk loolu la mais sumbul dara lu si sarsu Ila Touba bi pare na Mbour tubaab Mbour dakaar pare na loolu amul dara lu sumb ci réew moo xam ne amul dara waa ji du nit moom kay xam naa ne xalaatam moo jaaxal ñenn ñi moo tax ñuy wax mais man gisuma fi lu sumbandoo lu si sarse amut voilà maa ngi kontaan sax ci li nga ne euh, liggéeyu président def ko yóbbu ci wàllu yu euh, construction ci wàllu yoon Euh, ay piste ak gadron ak ci wàllu électrification parce que président xam na yoonu yokkute bi mu créé Sénégal yoonu yokkute boobu waa àll bi xam nga tey man ndakaaru gi lu ma fay ñëw duy bari fi mu ne bi ma fi gëjee léegi maa ngi ñett trois mois quinze jours maa ngi dooru ñëwaat ndakaaru mais ndakaaru du Sénégal Macky Sall gis na ne àll bi amuñu yoon ci yoonu yokkuteem nee na même dëkk yi bu ñu amul sax tali bu ñuul ñu am tali bu xonq fi mu ne foo dem ci àll bi tali bu xonq la man tey président ci première année bi bi mu toogaatee deuxième mandat ak léegi sama commune bi Macky Sall di jël Sénégal benn forage sa fa nekkoon trois villages da ci naan bi muy jël Sénégal ma nekkoon président communal bi benn forage sa fa nekkoon trois villages da ci naan fi nekk nii juróomi forage sa nga fa 41 villages ñetti villages yi ci amagul ndox te ren dinaa leen defal ndox bu soobee yàlla euh, wàllu électrification sama commune benn village moo amoon électrification mooy Diossong commune dëkk boo xam ne 1902 lañ ko sanc président ci benn année bii li tax ma sawar ci benn atam bii rek mu defaale ci bopp réew mi benn atam bii mu defaale ci boppu réew mi électrification Diossong fi mu nekk ni dix villages ñu ngi leen samp taal xotti courant bi ba ci biir àll ba samp taal courant boo xam ne mosul am Sénégal ay poto ciment yoo xam ne courant bu ba ba mu def ci àll ba sax newul ndakaaru courant ba muy def ci ba newul ndakaaru loolu ku am xalaat ku am vision dëkk yoo xam ne ay 1901 1902 lañ ko sanc boolewuñ leen woon ci yoon boolewuñ leen ci courant boole wuñ leen ci ndox Macky Sall dafa ñëw boole ñu dëkk àll bi yëpp utal leen ndox utal leen yoon utal leen courant moo tax sax dana xaw a jafe ñenn ñi ma ñenn ñi ma gis nga xam ne dañ yàkkamti mu jog ci bopp réew mi boo demee man dama commune ak département ba ma dëkk ñun xamuñ ne beneen parti am na fu ko natt rek ñu tegal ko ko fa fu natt rek ñu tegal ko ko fa ñun parce que moo ñu boole ci Sénégal dañ ñu ci boole wuroon ki ñu boole ci réew mi nag fekk mu ngee bëgg rek ñu bëgg ko ñu jox ko li mu soxla fekk mu ngee bëgg rek jarul sax campagne jarut muy génn Sénégal waxoon naa ko bi muy ut réew mi première année bii mu def mandat bii bi mu koy ut ba mu ñëwee sama commune nanaa ko ne maire bu ne Sénégal bu taxawee na war a taxawee ci askan wi def la mu war a def waroon a wër Sénégal nañ ñun ñoo la war a campagne jox la résultat danaa la jox quatre-vingt-dix pour cent na ma ko waxee woon laa ko defee man ñetti fan rek laa def campagne quatrième jour bu ñu wati ma joxe résultat boobu parce que jarulul ma wër maa ngi ci ak jàppale bi mu ñu jàppale moo tax ñu mën a jàppale population bi pour que réagir soxlaay nit ñi. voilà affaire santé sawar naa pour wax ci na xam nga président dafa teg ay ministre waxoon naa fii ci Allo Dakar. Euh, le 29 décembre 2019 ma ne président na bàyyi xel ci document yi ñu koy indil conseil des ministres ak réalité yi ci terrain bi bokk ci côté santé man bi may nekk président conseil rural bu Diossong ñaari poste de santé ñoo amoon ci collectivité locale bi muy Diossong village bi ma dëkk commune bi ak Njaanjaay Wolof ma créé naa beneen poste ak population bi Lerane Kuli créé beneen poste Mbowen Souley ak population bi population bi commune bi am lu muy joxe chaque année population bi ñuy cotiser ressources yi ñuy fay ba 2018 ci lañ intégré contrat yooyu infirmiers yu ñu contrat pour que ñu nekk ICP plein maa ngi ciy gërëm euh, ministère sortant va me Coll mais di wax né ministère Abdoulaye Diouf Sarr xamna mu baax maire la comme man maire la comme man BIS, bi télé bi bari na wax ji mais réalité terrain bi dafa dess ci côté santé parce que gis na ci lo xam tit na ci trop man quatre postes de santé la am ñëw na ci district bo xam amna am na ay ambulance maniko ko man ci réew mi laa bokk don nga maire mais contribution Macky Sall lima ci def ci fal defo ko ci mu nommé le ministre jàppale ma quatre postes la am ben amul ci ambulance jàppale ma parce que commune bi ma am amul recette mu ne ma dinaa ko def ba tey joxu dara quatre post yoo xam ne amuñu ambulance benn bi ci am am ñaari yi ñaar yi am ambulance ressortissants yi ñoo ko jënd benn bi ku ñuy wax Lamine Cissé moo ko jëndoon 2014 benn bi ressortissant waa Njaañ yooyu wolof ñoo ko jënd pour kii bi kooku mu ci wàllu santé gis naa ci ay réformes yoo xam ne président xamul nu mu demee mais man wóoluwuma ko d'accordut baaxul nit ñi kenn fajut leen man maa ko wax urgence bi kenn réglé wul leen li may wax nii semaine passé am nañ CRD département fu ñu préfet ñëpp a ngi toog ak médecins yi ma wax ko ne leen kenn ci yéen na ma corrige benn jaaxle bi njëkk am ñun région Fatick dëgg la sax président mu ngi def foofu benn pont pont bi pareegul mais bañ juddoogul ba tey ak ñi fi nekk bu ñuy évacuer mali malade Sokone Diossong 30 kilomètres la 35 kilomètres fi lañ doon évacuer hôpital Ibrahima Niass bu Kaolack léegi nag gis nañ xaw ma ci ci li may wax ni ministre bi man moom lay siise rek fi mu nekk nii la dalee Karang post ba Fatick dañuy wëri maladie maladie yaa ngi dee parce que nangootuñ district Passy district Sokone lañ am ci département Foundiougne ci suñ côté boobu yépp Fatick lañu leen wax fi mu ne nii ñuy fa évacuer ji Iwa rombo hôpital bu kaolak di ke ji fatik doxut te hit man dama am lo xamne nit president bu len santé dara ñuy liggéey dañ ko wara andil ay xalaat yu bees dañ war a améliorer affaire bi parce que na né ne ke kaolak ak fatik sax dafa wara jeex ndax kaolak sokon hôpital bañ fa tabax japp na né fekkuñ ay bâtiment fatik fekkuñ ay bâtiment kaolak ay borom xam-xam lañ fay fekki nañ andi matériel distribu nañ andi matériel distribu soo euh, Sokone évacuer Kaolack ak Sokone dafa war a jeex bloc opération yëpp am na Sokone mais amul médecin amul dara defaruñ ko loolu noonu kuñ dénk ministre bu dee xam na ko taxawut ci ana bitsi biñ ko woteel ñun fi mu ne nii ñun maa ko wax devant public sonn nañ ci malade yaa ngi dee diggante kawlax ak Fatick parce que ursance nga déparé Karang Poste wala déparé Diossong romb Kaolack ñu ne Fatick ngay dem Fatik daf ñu du mooy trop parce que dafa enclavé loolu benn erreur a ngi bo boo ni mom nii kam bu dee ko ko kon sori na trop ah parce que évacuer malade te bu feke liñ ko jox yokkoon na warna war bolok bi nekk ak pasi mu am matériel bu mucc ayib mu effectif médecin bo xam ne jar ñuy fekk nit ñi kawlax foofu la bi ci tegee mooy li ñu naan couverture maladie universelle président laa àndat moom laay jàppale mais li nga xam ne man maa ngi koy dund ak population bi di ko ci jàppale dinaa ko wax couverture malade universelle lu métti la ci askan bi parce que idaam bii ñuy test ci kungu Koungheul ak Fatick wax naa ko ci département bi fan yi musiba mbaaba kumba mu ngi ci parce que tey bu njëkk képp kuy àkku si ci poste de santé yi soo amee 5000 francs nga accouché soo amee 2000 francs soo demee ci poste bi dana fees de la garab nga faju ñibi mais biñ commencé idam bi ba muy commencé dafa amoon partenaire bu ñëw des Belgique ñu indi médicament yu bëri jóor ci poste yi indi jóor ci district yi ñu départ parce que défi boobu la ñu lancé ñu foog na affaire bi dox na ba des demee ba tey ñoom mënuñu indi garab dañu lépp sama poste de santé yi garab 3 mois idam bi du leen mën a fay kooku du assurance assurance boo xam ne sax bu lebee post bi mënu koo fay nit ñi dafa assurer maladie universelle ba pare ku fa di tarification forfaitaire bi beneen problème la parce que fi mu ne nii commune Diossong surtout post santé Diossong ak bu ko wër poste santé yi kenn ameetu fi doom parce que médecin district Fatick bi wala hôpital Fatick bi ñoo leen arnaqué fi mu ne daleen laaj ay données yoo xam ne sage-femme yëpp dañoo tiit li maay wax ni taaj naa médecin Passy bi wax ko ko taaj naa sage-femme Diossong bi comme ñëw xool rek. nala demal évacuer le Passy foofu ngay accoucher ji te poste de santé ak case de santé dañ ko defone pour décentraliser fajj pour mu yomb légui nak mom mun a jël yenn risque yi parce que bu nit dee dañ ko laaj nangam ak nangam loolu taxna na fi ne benn jigen poste ba sax ñak sage sa mo gën sage-femme am parce que sage-femme boo ne ku ñëw gis na ko xamné ne dafa ñëw accoucher kërëm ba paré ñëw ci poste bi mu référé ko Passy mu dem Passy ma fekk ko fa ñaari fan parce que bo demee trification forfaitaire bi Passy ci kanam médecins yi ak su préfet laa préfet laa leen ko waxee ci euh, soo demee tarification forfaitaire vingt cinq mille ngay joxe kaas ñoom ñu door laay bindal ordonnance nga dem pharmacie maa ko souligné ci kanam préfet ñu ne ñoom amuñ garab waaw médecin boo xam ne du jet amul saafara amul ren su suñu amatul garab kon santé bi sooxe na faj ga sooxe na kooku noonu ñu évacué def na fa ñaari fan passé fajuñ ko du dëgg fajuñ ko ba pare ba teg sax amul lu lekk maa ko fekk parce que sama soxna moo doon accouché foofu kon gis naa ne wàllu faj gi am na sooxe bu rëy Abdoulaye Diouf saar ministre la maire la te président gis nga kimili post yi na ko bàyyi gis nga maire yi dong doy na liggéey maire dong maire assisté population bi la chaque jour nga war a xëy lu nit ñi ne nga nekk lu ñu yendu ngeen ca maire dong doy na liggéey waxum laa ñu teg ke ministère loolu ku kuñ ko booleet mënul nekk ba ca tegee mooy gis naa benn malaat boo xam ne dama commune daaru saadar ku ma la dëkk ku néew doole la ñëw district Sokone ñu entré ko fa une semaine ñu jaay seen xar yaag la lañ am yëpp jeex ñu évacué ko Kaolack lu ma gën a marqué te métti ma ci àdduna fu ma ko mën a waxee dinaa ko pour président dégg lii may wax ñu évacué ko Kaolack mu dem magam la amee seen papa dafa gaañu mag ji ne 2000 francs la yore ku ñuy wax Mansour Dianka moo ko ak accompagner moo yore radiographie bu Sokone ba mu en accompagner malade bi dem ba kawlax Kaolack récité ko comme amul xaalis ñu ne duñ ko opéré Mansour Dianka oo ma téléphone ma fekk maa ngi réunion bi ma paree ma rappelé ko vers 19 heures mu ne ma man dama am bu ma accompagner wu Kaolack sa commune la dëkk. delloon nañ ko parce que amul lu mu fajo man a anam malade bu mënu mu ngi soogoon ma dem fekk ko fa génnee xaalis jox leen ko na leen dem leen ko wax ñu opéré ko mu ngi mujj 420 mille la ko opéré mais loolu jàmm la ci hôpital public mu dem fa ñu récité ko kon faj gi sooxe na waaw document jarul sonn document yi mu koy jox la rek booy door Dakar lañ dañuy defar ba mu baax dem ci télé yi di bés tey ndey yàlla tere euh, feebar bii ñuy wax nii ku coronavirus bii ñuy wax su fekkoon ne am na xalaat am na esprit déplacement war na demagum fi mu nekk nii hôpital régionaux bu nekk ñu defaale fa ay tànt Touba Xelcom yu mag disposé fa ay ay ay médecin ak ay prothèse ak lépp préparé ko lan nga gis ñu defaale bu doon këpp ci suñ ko mu naan pare na nekk ci télé ak rajo yi di wax loolu du faj gi te balaa ngaay mënee régler coronavirus na fekk gum ñu ne ci réew mi feebar nga mën leen faj paafiru santé dafa sooxe maa ko wax Abdoulaye Diouf Sarr moom doxalu ci dara xamu ci dara parce que man maa ngi quatre post de ak departement ba ma dëkk jafe-jafe bu métti moo ci nekk tey tey tey tey nit ñaa ngi feebar di dee te kenn faju leen maa ngi seetaan benn bis te TFM Ndoye baan di lancer défi président ne maa ngi ko wax ne nit ñi kenn fajul leen keroog bi Ndoye Bane di wax loolu keroog bi ma ko dégloo 15 heures journal 19 heures lañ ma ooyee malade boobu Daaru Saador Kouma Abdoulaye Diouf Sarr li tax ñu bàyyi ko fa am na xariñ ak pexe yoo xam ne ni dañuy defar ay documents yu rafet yët ko président def naa lii def naa lii président moo tax ma ne conseil des ministres document ak réalité terrain bi bokkut nañ yónnee yeneen nit ñu xool réalité terrain bi nañ xool yeneen nit ñu def réalité micro trottoir nañ def micro trottoir ñu dem ci biir àll bi ci poste santé yi ci village yi ñu laajte sant dem ci hôpital régionaux yi ñu fekk fa malade laaj leen dañu xam ne santé jafe-jafe bu mag la am waa ji doxalu ci dara amul gisuma lu ci yokk mais attends dama lay ñu nan lañ demee siin non dama lay laaj état moo leen yóbbu siin wala seen mooy lañ demee siin dañoo dem voilà ñooñu ñoo yóbbu seen boppu siin ñooñu tey ñaata personnes lañ. treize personnes. treize personnes yooyu ndax dañ feebar bi daf leen laal mais attends déglu ma rek feebar bi dafay tourner rek ci àdduna bi déggoo ko Italie est-ce que président tey tey tey faj gi nekkagum fii ñun dañu war a xoddeeku xoddeeku bi mooy préparer ay tente préparer garab préparer ay médecin pélin yoo xam ne même buñ ñu ko recruter yi au niveau national pour préparer fagaroogum fam xewee sii na ñu ëpp doole ëpp ñu capacité mënaguñ ca dara wóoru tey ban médecin mooy dem foofu pour ñu jëleen ak euh, avion boo xam ne médicalisé la nangam ak nangam loolu dafa laaj loo xam ne ci ñoo xam ne bu doon étudiant yoo xam ne état leen jox bourse yóbbu leen fa xëy na tey bu fekkoon ne dafa jëriñee Chine ñu tourné at fii ci ci ci ci ci ci Italie ñu ne ña ca Italie nañ leen indi loolu président mënu ko gis nga président dafa am vision dafa am loo xamante ne nii mënu nekk. parce que ah, ban kan mooy bàyyeeku gum siin ñëw fii tey tey tey ñooñu bu ñu leen indi woon rek bu ñu leen doon andi rek tey suba ñu ne coronavirus bi dugg na Sénégal comme dara jotu leen nañ leen fa bàyyi nag Sénégal yu koy jooytu waa Dakar waa Dakar waaw kay waaye ñii ko amut nit du jooy lu mu xamut ci loo bëgg ma wax éducation bi walla lan voilà problème mu éducation. gis nga problème éducation li ma gis mooy Sénégal éducation Sénégal dafa mag président Macky Sall daf ko fekk ñu jàngal ko ci éducation Sénégal tuba bi wax ni ñoo jàngee ba tey ñoo ñoo wax lu ñuy jàng gis nga affaire buñ ko ragal éducation Sénégal jànguñ ci école yi lu dul làkk du dëgg tey parents d'élèves yi ñoo waroon a njëkk a grève suñ grève woon la Macky Sall mën a redresser éducation parce que parce que ñi jàng kër goo dem fukk yu fa am bac set yi dañuy sëmër liggéeyuñ dara kenn satisfaire la parce que balaa ngay am bac da nga am 19 ans dañuy bàyyi ba nga mësoor loolu tubaab yoo ko fi teg am na ñoo xam ne seen xel may na leen buñ ko réformé balaa am 19 ans am bac éducation formation la ñu waroon def tey buñ créé woon réew mi neex nay defer mais président mënu ko parce que constitution bi tubaab yoo ko fi tëgg teg ko fi. tey éducation bi tey tey tey bu fekkoon ne yow booy def quatrième boo nekkee CM2 ngay commencé def formation journaliste prof journal ba nekk fa soo amee bac dangay nekk journaliste plein nekk fonctionnaire dem école gendarmerie bi professeur gendarmerie ba nekk fa douane bi noonu noonu la ñu waroon jàngee loolu man man ma Touré man alxuraan laa jàng kooki laa jàngee mais sama xalaat noonu la ñu waroon di jàngee ku am bac konoon université bi du xat du problème parce que ñëpp soutien de famille la ñu doon ku am bac. ñu ñu ñu ñu ñu réforme secteur élevage bi ñaata ñaata ñaata lañ soxla ci vétérinaire ñu service pêche bi service agriculture bi ñaata lañ soxla ci agent agriculture suñ fekkoon ne dañ leen a jàngal ñuy jàng CMD la ñu commencé jàng profil euh, agriculture ba nekk fa jàngal leen ñu former leen ku am bac nekk fonctionnaire pré ñu dem accompagner nit ñi doon problème bi éducation bi réglé mais éducation boo xamante ni soo jàngee dem université ba am bac soo defee trois ans deuxième année bi te sa moyenne ñu dàq la nga toog ñoo ñooy ne ci tali bi di attaqué loolu lépp nag tubaab yi ñoo ko créé ni ñu jàngee dafa jiitu président amul ku ko mën a régler fekk defu jàngeewuñ ni ma wax nii fekk jàngewuñ ni ma wax nii mënuñ ko régler affaire troisième mandat président de la république mooy loolu rek tubaab yi ñooñu tegal projet yi tegal ñu looy gis nga équipe buy gañ nit ñee ko wax kenn du ko sens équipe buy gañ kenn du ko sens constitution loolu moy mooy wax tubaab yi ñoko fi tek ñoo ñu tegal loolu rek tubaab yi ñoo ñu tegal loolu parce que bugguñ Afrique développé surtout nak bugguñ sax président bu melni président Macky Sall. président bo xamné après indépendance lu judd yenn yi tiitalu dafa am vision bu juddoon après gis nga Abdoulaye Wade na liggéey mais dafa juddoon avant indépendance motax mais gis nga ñu judd après indépendance dañu mom sen bop total sen xolit mom indépendance total la ñam donte rew mi amul indépendance total maanaam nag dama lay waxtaan benn affaire tey man Mamat Touré man Mamat ture maa ko wax président Macky Sall su bëggoon junnee mandat mairie Diossong mën na ko jox. mairie Diossong mën na ko dama lay wax mairie Diossong Macky Sall su waxuma téeméer de Macky su bëggoon toog président à vie man na ma téye commune Diossong mën na ko amul benn parti bu fa am dara. parce que li muy def ak fi mu jëmee Sénégal yi bis bu ne ma wax leen ko. lépp lu fa xew maa ngi fi ci nit ñi maa ngi daw ma fen man daw ma fen daw ma fen bay ñëw toog ci nit ñi soxla bu nit am maay jiitu soxla bu nit am ku jëm gendarmerie ku jëm tribunal maay jiitu soo ne amee dëgg ma ne yaa am dëgg jox leen ko dëgg soo amul dëgg ma ñaanal président Macky Sall ñun suñ dëkk yi ay 1901 lañ leen sanc du dëgg amuñ woon yoon premier mandat bii nii rek premier benn atam bii

président su bëggee mille mandat joosong pare na ko jox jarul muy te bu mu génnee moyen bu mu wëri voilà merci beaucoup Camara